أحمد تاج الفدلاء وعلي والحشم صلي على المقاتب أحمد زل مناقب والعز والمراتب سراج صلي على المقاتب أحمد ذي المناقب ذي العز والمراتب سراجك المفخم هو نبي رحمة نبي مهار الله باب كل نعمة مصدر كل حكمة ملجأ كل زعيم ملجأ كل زائم له وجه كل زائم سلق جكم وجه كل زائم لا لا لا لا وجه كل زائم قلبي بدفلني وجه كل زائم لا لا لا لا وجه كل زائم داني دفلني وجه كل زائم صفيا نندي بالله وجه كل زائم مجاه كل زاهب مجاه كل زاهب هو نبي رحمتي دغلا وايكو بغيرتي من لوقت موي باب كل نعمتي مصدر كل حكمتي ملجأ كل زعيم سيدنا قد جرى بكرة دوغي قد بشرى قد قصوا رب الورى حزن زلال منجم فهو نبي رحمة نبي موي باب كل نعمة مصدر كل حكمة ملجأ كل نعيم شفيعنا خير الورى بكرده بلواء قد بشرى قد قصه رب الورى حسن سلام بمختم قد عزم الله نبي هجرة ليسلمي مع حبيبي أبي بكر رهيب وبصاحبي Hallelujah. وصل أنا كيرتي بسلام alhamdulilahi ah! bi loxo ca bi jalaalihi ah! أحيا الأنامة ودينا بمحمد الحمد لله الذي بجلالي مصطفى مو يقل صلى الله عليه وسلم أحيا العلامة ودينا بمحمد خلق الآدم خلق الرحمن آدم الذي من أصله إلى لحب محمد

خلق العبادة بحروف محمد خلق العباد بحروف محمد فمن العلا ما من نبي ولا رسول إله خلق من نوره تلات البيئة وحاول حمى اللي منى به وطبيعة ملة إبراهيم حنفية وحاصة بسنتي ليس يدام ميم الأخرى مفتاح رحمتي ودال دعوة شفاة لأمتي نبينا محمد بمحمد وببنته وببعلها وابنه بتعيني أعلاها للهدى صب يا رسول الله منين ما ملا صلى الله عليه وسلم بمحمد وببنته وببعلها وابنه موصبتين أعلى بالهدى وبصحبه والتابين لهم فهم صلاها صاداتنا هذا المكان Marifa Mazdadar.

غني مني ومخزن النور لما عاب عبره مني وخيب الله يظنون الأقرب مسجد العلال الخوف عرد ممري الله لا الفوز كان يدبلني مني لا مخزن النور

sëñ Babacar bëgg alaaji Malick bëgg alaaji Sall bëgg sëriñ Maodo bëgg sëriñ Maodo bëgg sëriñ Maodo mani fa mas أكبر إلا لنا الفوز لا إله إلا الله لكن ذلك في المسرور ممتلئ من تسيع راجعا متى فما استدار إلا للكون وإلى مصطفى قلبي بدفلاني من العجن ولم يرى يبقى مرضي يرجو من الله عونا غير مبتسم لم يقدر يخفى مواسمه يرجو من الله عونا غير تنتبه دفلاني من يرجو من الله sëñ ba

Yo, yo, yo, yo. màggal yoonam jug leen màggal yoonam ku bëgg alaaji sàll ku bëgg alaaji sàll ku bëgg sëriñ Maodo ku bëgg alaaji sàll ku bëgg sëñ Babacar mani yarja yarja yarja min allahi awlan xayran alkaara ramana ansa ñawlal dem sa ndar seeti sëñ Maodo Fallu ku jaaral tuugal tuugal yarja mana jaaral laama mana jaaral laama ku bëgg yannal bi mu ni fa baaya alkaara ramana ansa tuugal dem ca ndar seeti sëñ Maodo Fallu ku mu jaaral tuugal tuugal yarja مجرى يرجو من الله عونا غير ملتزم بارع الكرم كرما عبسا كرم الدم سيدي سلمان صلى مجرى مجرى مجرى مجرى مجرى مجرى لخي كمجارل واو كمجارل لخي كمجارل يرجع يرجع من الله أنا الغير الحاجب يرجع يرجع يرجع من الله وبقي الذي من الله طيب فبايع الكرم seeti bay Maodo ku mu jooral juubal juubal ku mu jooral juubal ku mu jooral ku mu jooral waaw waaw ku mu jooral waaw waaw ku mu jooral loxo yi ku mu jooral yar na loxo ca kaw ñu màggal ko jar na ko dee والزموا مديح محمد وسلم مديح محمد والزم مديح محمد نبنني والزم والزم مديح محمد شيء في قلب بذكر محمد صلى الله للعاشقين لوائج لم يشفيها الصلاة على النبي محمد أنا كبير لبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واطلب بجاه محمد عليه وسلم ما تبتغي ما غاب من يدعو بشاي محمد يا رسول الله نبي جرنا وي صلى الله عليه وسلم واترك سال محمد تفقر بها ما الفخر إلا في خصال يا رسول الله يدفلني ما قيلت يا محمد صلى الله عليه وسلم وانهض لقبر محمد كان ديون كبير تصعد به صيد الذي يدنو لخبر محمد واصبر لذات محمد ما شئت من شرف فسر سر ذات محمد bëgg yeneen bi loxo ca kaw ci màggal ko ci xulli yi ana ko fi ne gën a bëgg sayyidana muhammadi sallallahu alayhi wa sallam may ku bëgg yeneen bi loxo ca kaw ñu màggal ko ana soppee bàyyi ma yor sàlli est-ce que yeneen واذكر سبات محمد mu tas aajina loo حق التساجل في صفات محمد بذكر محمد قلب الشجيع لا شيء في قلبي بذكر محمد يا رسول الله نبي جرنا وي صلى الله عليه وسلم واحزن لموت محمد ووفاته نعم من ذا الذي لم يبك معه بمحمد تند بي نيب اني اني اني خديم محمد وعبيدا حسبي خديم محمد همني هبني لحب محمد صلى الله عليه وسلم يا ربنا يا ربنا بعون بحب محمد مصطفى أسلمت وجهي للذي فطر السماء وأتى العلا والأرض رب محمد ما وقفت عند الباب وقف تقاليد متواشلا مستشفعا بمحمد ما يني كرم يرنتبي ووقفت عند الباب وقف تقاليد متواصلا مستشفعا بمحمد عند الباب وقفة قادر متواصلا مستشفعا بمحمد إني قصير ذنبي ما لي حيلة من قدمت بين يدي مدحم أهل ودعاء معاذ قد حمعا رجوت من المولى بجاه محمد ñëpp ni nii ñu mag yonent yàlla Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam rajawtu min al-mawla bi hubbi Muhammadi wala neexee nga ni rajawtu min al-mawla بمدح محمد فدخول الجنان الخل لو كنت عاسيا رجوت رجوت من المولى بجاه الجود من المولى بمدح محمد خدعون جنان خد لو كنت عاسيا فكيف اخاف نارا تيلا موقع والله خايل قل فصلوا على المختار سيدي مربيا أدم الصلاة على النبي محمد داي أدم صلاة شكرا على النبي محمد فلأن مقبولة بلا تردد أعمالنا بين القبول يا إلى الصلاة على النبي يا محمد يكفيك فخرا بحب محمد إن المحب مع الحبيب سيحشر ينسى يكفيك فخرا بحب محمد إن المحب مع الحبيب سيحشر صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم وحصل دواما مدحا نخبة يا شيخ قال محمد صلى الله عليه وسلم ايكم بقي صلى الله عليه وسلم ما دمت قادرا يقنني فمدع رسول الله من اعظم الزخر ما نال رجال مراتبا من الملك العلام جلت عن الأشر يبنني فمدع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحمد عدتي محبته في القلب كنقصة الصخر سالعجب زمالنا رضي الله تعالى عنه وارضى امين امين امين ايا من بالخيرات يا سيد الورى بجايكم ونرجو صباح عدد العشر وليس لنا في اليوم والغد منقذ سوى جايكم في حالة الضيق والعسر كصف دبخ مالك رضي الله تعالى عنه أتيناك مخمومين راجين كشف ما لدينا من الأعذال والكرب والدير ku sopp da baax Malick defal ma ni ni ma man la wa baabu ka ah. maa waafaahu abdun walam yanal بجودك ما يرجو من الفوز والأجر صلاة آمين وتسليم على شافي الورى محمد المختار خير بني فهري وأزواجي والعالي أنجم دينه وأصحابي مدت لغاتي سوي الكفر سلم على سيدنا شفاعته الإله ملايا بيرلين بسم الإله ملايا بيرلين ci kàddu yu wér li am te soobi yàlla fi ma minu qad kaana سوري مور بسم الله ملايا بيرلين ci kaddu yu wér li am ta soob yàlla fi ma minhu qad kaana وصب حاج مالك مورا سال انما دفل مني رضي الله تعالى عنه يلا في ياك تور سري موري يا يقر والله يا يقرمي يومك ام جبل تقول قصه داع منه إحسانا sopp bàyyi Maodo Cheikh Omar nee na baayam dan saji gaa bilaa gam-gam le may ki ko xam kii mooy ki ndéeg le bi xataa saara حيرانا قيود ولاية بقيس باي مودة قدوتنا ألقي العصا تعظى من ذا القوس مرجانا قيود بجس باي مودا سال خطوتنا ألق الأصا من ذا القوس المرجانا سري موريا واكي سدرجة سلم يا رب طلق جامي في علن dafa nga mbokkoo gi saara ixwaana waaye ana soppay bàyyi Maodo ko sëriñ Maodo yaa wàcce sa daraja ku sopp baay moo defal ma nii yaa wàcce sa daraja ndax sëriñ Maodo yaay mosile yaay ramu jaam ñi ëllëg dëgg la yàlla na ko si yàlla boole. amiin ndax ramm am na. waaye yéen si yàlla boole ñooy ramm. amiin incha allah. Serigne Maodo yaay mosule. waaw. yaay ramm jaam yàlla. amiin. yaay ramm taaliba yi ëllëg. yaa xam yàlla. yow yow yow yow. yow yaa nu ko wan. yaay démb yaay tey di nandal kulla zamaani ku soppu Baay moo defal ma nii yàlla fi fi yàlla fi yàlla fi yàgg te ànd ak wér Sëriñ Maodo yaay ramu sa taaliba yi Maodo yaa xam yàlla yow yaa nu yaa dem yaay tay dinaan kulla zamaan bay Maodo sëriñ Maodo du nelaw kulla laylin دفاي فلان الدخو صلوا أو ركوع أو سجود أو جمع القرآن نور الولاية مكنون بدلاديك

مفتاح أسرارها في خط يمنى سري مودو نينانك جالين كبايك اكتمامي نيبالاوي والله باتاي يبدل فرحه jazlaana nekkoo di sas kenn baa nga yuuxu kenn ko am xanaa rek sàmm leen topp yàlla tamaytu seytaana bàyyi Maodo salmaana ma xattu خر العين ليلة قلبي تهجى بئس العذا مصلاة شري ودسل سل دوسس كن بان يوهو كن كو ام خنارك رك سامولين topp yàlla tey moytu seytaan kullu qulubi كل القلوب إلى الحبيب تميل ومن بهذا شاهد ودليل القلوب إلى الحبيب تميل ومن إيه بهذا شاهد ودليل الرصاص جادتي تكريما تكريما ودليل الرصاص جادتي

إذا ذكرت محمدا فقرات العاشقين تسيل هذا مقالي فيك يا أشرف الورى ومريض يا رسول الله خليل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المرتدى هذا لكل العالمين رسول هذا رد العيون بكفي مستواها لما بدت فوق الخدود تصير يا رب إني قد مدحت محمدا في ثوابي بمديح جزيل صلى عليك الله يا علم العلا ما لاح بدر في سماء دليل صلاة الفاتحة يعني يلا نوم جدوه يب ما شاء الله سنو سنو كلفة يلدن إبيرك مدرين توك ما شاء الله يعني يلا باركن يعني يلا بدي سنفر يعني يلا يقسن وير يلا سنميسيون يلا だって言うんですよ朝から。

doo mën a borom xam-xam buy xuloo asalaamaaleykum wa rahmatullah. nuyoo naa de. ياكل الدب بفاتحة بفاتحة الصلاة الفاتحة نقول ñëpp jàng jàngaleem ñaan gi yaa moo ko yàlla def la di ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu jël yoon bi yéene ko jox si jëw ba ëg si Mouhamadou Mansour Khalifa yàlla ko yàlla yàggal ci kaw jamono أكون آمين دوين آمين يا لربنا يا يا كده بيبلبيت كلام مفيد كبدت لكم نيف نيف كبدت لكم ñaanal Seydi El Hadji Malick Sall moom yi muy taxaw ya ndax ko yàlla na xawe du ngeen amin du ngeen amin ka dafay mel ni ci man def kenn defe neewu moo tax yàlla fa jàngoro yëpp nag iman yokk sunu jubeel ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëgg dëgg dëgg ci dëgg Cheikh boole leen yobal seen bi ak bari képp ku tëdd yal na ko yàlla yëkkati ku koy sooxaale yal na ko yàlla dimbali te ànd ak dund ak wér nag bu yàggee yàlla may ñu mut bu rafet tabbal ñu aljanna bi gayri xisaabi bi jaayi sayyidil wara sallallahu alayhi wa sallam bismillah fatiha لا اله الا الله لا إله الا الله Allah. الله عليه صلاة الله Agreed.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 على محمد الفتح لما أغلق والخدم لما سبق نهض الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره اللهم صل على سيدنا محمد الفتح لما أغلق والخدم لما سبق نهض الحق بالحق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 诶 حميد حاد على طيب الوداع البراء يا يوم مزدع من كل وصف حميد هذا أفعل على جفتي المصطفى من كل وصف حميد حاز أفعاله حميد هذا أفعل تفعل حميد على أفعال تفضيل الوطن والبراء يا يوم مزدحم عدمنا من كل وصف حميد هذا أفعال على تفضيل الوطن

خلقا وخير العلم والجمع المنى من كل وصف حميد الحاج أفعال على تفضيل ما جاء يا يا مصداح مملن نمتين

قلبي ولذيبك بالكل وصف وش العبيد الحال أفعالها على جهدي تتقون به وقد بدت النبي في حنين غاية القرآن من كل وصف أمين هذا ولا ولتفضيل Oh. تفضيل ما دام me. ولا عين هناك حلا طلعته جميلة بهجته

علمه علم وحكمة فهمه سر ونعمة قلبه تعلم النبي والحجر صلى وسلم ربي ترى صلى وعليه الصلاة مشروخ الزهر علم النبي والحجر صلى وسلم ببلادنا تصلى وعليه ظل مشروخ الزهر علم الحجر صلى وسلم ببعيدة صلى وعليه لا لا لا مشيوخ زهر علمه

وارد صلى الله وصلى بمراكب تصلى وعليه اليوم الصلاة والمالك أيدني والمالك ألهجتني والمباني عيرتني بالقرآن النبي علم يقتل والقدر صلى وسلم ببراكنا تصلى وعليه ظل مصطفى يا إمام الأنبياء يا ملاذ الأتقياء يا صراط الأنبياء جنبي صل يا محمد يا حبيبي يا محمد كن طبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد كن طبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد كن طبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد صب لمن يا محمد يا حبيبي يا محمد الطبيب يا محمد يا حبيبي يا محمد إن يا محمد يا حبيبي ودار الثقة سبعة في المناوي بلية وسبعك علي يمني كل خير البنية ادرك يا زيد يا محمد يا حبيبي يا حبيبي كنت طبيبي الصلاة من حساب يا محمد يا حبيبي يا محمد تقبلني وأني من ليلي ابن أوزان الزمان والصلاة مع سلام صلاة تبع سلام عن نبيه خير الأنام وعلى صحب الكرام مع آلي خير آل وارض عن ابن سالم وارض عن ابن سالم شنو قلت لي جان ويسأل الخير هاشمي منبع المكارم شيخ شيوخ العيلمي وارضى من سالمي شمت داك مويت علي خير هاشمي وضع من زعامي شيخ تدان وفي قناة أمر إلسا بيشر سنجي شريف ومسد له مسد ولي شمت جاني ولي ومسد له مسد ولي بدون ينن فلن يبقى سنسن بلك دمرنت الشيخ تياني ننتك أي دمجي أخر نقيونة تبلن لك ننتك بسالمي شيخ تجاني مرسل بخير هاشم منبع المكارم من شيخ شيوخ العالمين كعجب سنين أبي الفيوض عمدتي من إلى العلي وسيلتي شغتيان وممد كل قدوتي من غير أنت ربي صدقت كل ولي راعيا قد روى بعين احترامي غير الجصيد احمد التجاني هو شيخي وملاذي وعمدتي sheekhu Tijaani mooy imaam yi wa nadri qutbi wujudi aylami شيخي شيخي شيخي ويكرم ورد على من سعالمي ونجرق من شيخي أبي العباس بحر الحكم ممد كل أولياء الله من غير ذكر ويا الله بصاحب الختم المحمدي قد خصنا خالق كل شيء ما لم يكن لغيرنا جازا عنا بجاهدته مولاه شير عادي أبراهيم سنة طوبى لنا طوبى لنا طوبى لنا طوبى لنا كافروا يا إخوتي إلا الولاء طوبى لنا من ملجأ أمان ممدنا ثم تلو يقود للبلاد ربي إني كل ولي رايا قد روى غير من شيخنا تجاني وشيخي وملاذي جوجوع عمدتي شيخ دياني مؤمنا ويوم القيامة بوابا ملائكة ملائكة نيانو وبكت نيو نعاني نعاني من رجال الله ويوم القيامة تجد الملائكة وملائكين بيلاجنا جيوين في العالم البعيد أحمد الإله صار متخوف ويوم القيامة وايكم مني نكون فواي نتجني الملائكة بكتاو malaa'ikay laaj yàlla ñun ñooy ñan mam yàlla naa leen ñooy gaañi ci kon gaañi mooy leen ci cheikh ahmad tijaani moomata ngoy ngeen sopp tan ahlaw yéen ñëpp ak di teral maab du ne bu leen xuloo bu leen ŋaayoo bu kenn ayibal moroomam it ikwati teet leen ko lool gën bu leen xuloo bu leen ŋaayoo bu kenn ayibal كامل الأنوار والأسرار خذ بيدي غدا ولا يا كامل الأمرار والأسرار خذ بيدي غدا شيخ يا كامل

وله الكمال وله الجمال هود قدوة الشيخ محمد أكرم بقطب قطب العالمين إن وتعالوا

Father.

وفضعنا والروض إلا إلا ليلة العيدة موضوناك تقصد ذا النبا والروض هناك لأبو بكر بعنينا الروض إلا مول بليلة اقصد فلتا والارض عنده فوليدة وليدة الفوتاك تقصد سفننا فدخل اخي مخلفا لمن متأدبا او نرت الفداء والروض عنده ليلة ليلة الفوتاك تقصد أبا جلسنا فادخلوا خيرا يا مسلما ومتقدما زرت الفدا فادخلوا خيرا لك مسلما ملقا متقدما مدخلا تلك الفئة وسنان الكتاب خذني يدا خذني يدا خذني يدا سيد أبو بكر يا نجا خذني يدا خذني يدا خذني يدا سيد أبو بكر سيد أبو بكر كان شيخ خذلي يدا جباخ مالك محمد ربي خذ بيدي بابك الزكاة الذي قد باب كرسي بين شيخ هلولي أنا وايمان لمن waaw mbooloo mi waaw Abdou Aziz dafa wax ni ci diggalu góor bu baax ñii toog nee na amul ko nekk ca jurbit ba amul takk baxana amul takk weer wala hul kamaalu jidda ngir booba booba kaaye yeewu petite بكت سيدنا الشيخ أحمد التجاني waaye petite بكت سيدنا الشيخ أحمد التجاني cheikh jàpp sa loxo kotti kotti yolli yolli ba aljanna amul sama baat dafa xottu amul baat bi dafa lii góor ñi rek na riir ca kaw na riir de lawul kamaalo lawul kamaalo يقتدى وله الكمال مين لم يطرق فاست وله الكمال وله الكمال قدوة الجاه لمن اهتدى شرخ الله فله الكمال الجمال القدوة شيخ لمن اهتدى

شيخ تجان يا سيدي أحمد التجاني دمرو فتل كمرام لولو دال مودي سرام حاتمي وقنا الإمام شيخ مرتبان بسينك شهد لي أكرخي جنيد سقطي يا كل ولي شنخ خلاته يوم كوي بنك دكو ستخابي يوم في يوم لو بنك balan balan dana ñëw gaawal gaw tëtee Cheikhu Tidiane danaa bëgg mu du jur jar Cheikh bu tolloo gën leen li yàlla dam yeex la sëb sëriñ bu mag sëb sëriñ bu mag bu mag boobee ba ko mag sëb sëriñ bu mag bu mag boobee ba ko mag ba nga naw fu ngeen déggoo mag boobe bu mag boobe ba ko mag ba ko mag mag boobe bu mag boobe ba ko mag ba ko danga naw doy bi taag mu far bi la daw far bi muslu yàlla ci yow ban gaal ko aale ko Cheikh Tidiane moo jaboote xutbu zamaan moo jaboote xutbu zamaan moo jaboote xutbu zamaan moo leen may ca leer ya fol ko suuf ya asamaan gërmeem jazaarat yàlla bu bi moo ko ko may sabam na ñaanu ko ko القصص أسمان ما لم تسارق سيدي أحمد التجاري ونك أمتنا الله على دين نبي دين نبي وحب شيخنا الإمام طيب أمتنا الله على دين والعدل والهدى بمودته من وفدته mooy suñu général bu ne nii rek dañuy foog tuuti te teg te mooy suñu général moo tax mu rëkk téere bi nii nii bëgg a gàmmu ren waaw su ko defee ñu jox micro central bi mu ànd ak organisation bi su ko defee nag bàyyi tafsir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 mbooloo meel waaye di wax ci ndigal nag sëñ Mansour Sall mu baax mii ne muy sant kilifa yi nga xam ni ñoo ne fii ci jataay bi di wéttali tunu wéjur bu baax wi kilifa yooyee ñu ràññee ci

moom kenn dootu ko laajte ànd ak Pape Seck ak yat Niang honorable député Aminte Gueye yabal na fi une très forte délégation Serigne Abdul Aziz Diagne Mohamed yabal na une très forte délégation Pape Ibrahim Faye

moom it andi na indi nuyoo ak ziyaar waa kër gi xadara ba mu jóge yépp mu wax ni daayira sopp na bi ñoom délégation mi ci Kaffrine bi ak daayira sop Cheikh famille Alaaji Paate Mbay yabal na fi une très forte délégation waaye daayira Xafoor Rahim bu Cheikh Omar Fall teew nañu waaye di fàttali seen gàmmu le 22 mars ca kokki ko sëñ bi ne mi ngi ko yëgal ñépp sëñ Khalifa ñang mu alaaji Tidiane ñang moom it teew na yabal na une très forte délégation xanaa di sant rek daayira yépp mu ni daayira barñi bu sëñ Maodo si teew na ñu xam ni daayira yi li ko commencé Saalum te tudd naa lee géej jaar saxañ jaar kalsaan jaar ngiig ndella jaar wuuruur daar ndella xeer kër aale jaw waa daara mbos waa ñomre Vélingara waa ngiig faal daayira mbataar daayira Dakar mooy ñi nga xam ni ci ëtt bii lanu lanu yaroo ci ëtt bii lanu jàngi alxuraan daayira Afrique du Sud waaye daayira Italie ak waa Europe gépp ak daayira Mbuur sëñ bi ne daayira yëpp tubarkalla macha allah teew nanu gis na leen bu jëlee kàddu gi dana mottali li ci des kon li ñuy def mooy ci ndigal ba tey njox kàddu gi Cheikh Oumar Sall balaa ñoo jox sëñ bi Cheikh Oumar Sall bisimilah kànn nga kàddu gaa ngoog ana Cheikh Oumar Cheikh Oumar Sall بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله رب الناس والفلق أعوذ بالله رب الناس والفلق من شر ما يبرم الشيطان في الغسق الحمد لله ربي على عظيم إنعامه ودوام إكرامه سبحانه الأزلي أحسن خالق الواحد القهار يفعل ما يشاء ثم الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والرسل سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم يا أكرم الخلق جئنا يوم ذكراك والقلب بالحب والإحسان ناجاك نحو مدينتك الزهراء يدفعنا حب وشوق وتحنان للقياك كان اسمها يشربا من قبل هجرتكم فأصبحت طيبة من بعد رؤياك كانت كسائر بلدان الدنا فقدت من بعد هجرتكم تسمو بدنياك قد أصبحت حرما لما سكنت بها وروضة من رياد الخلد تهواك تعطرت أرضها لما خطوت بها وصار مسكا ثراها عند مسراك من أرض طيبة نور عم عالمنا بشراك يا عالم الإسلام بشراك فما تحمل رسل الله من خلق ومن فضائل بعض من سجاياك إنا نحبك عن بعد وعن كسب وما نسيناك يوما أو سلوناك وبعد سيارة الخليفة الشيخ مودو مالي سال التجاني الخليفة العام لأسرة العارف بالله الشيخ ميرو سال التجاني حضرات الضيوف الكرام سيداتي وساداتي أيها الحفل الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فإن هذه الليلة المباركة بحلتها هذه الجميلة من تلك الليالي العظيمة عند الله سبحانه وتعالى إن لم تكن أعظمها إذ فيها بزغ للسعادة فجرها وتم فيها للعوالم خيرها بل اكتمل فيها للمسرة بدرها في مثل هذا اليوم المبارك وفت الأقدار ما كانت قد وعدت به في سالف الأزمان ونشرت من طيها ما لم تكن تعوض عنه بأي ثمن من الأسمان وكشفت النقاب عن ما كانت تضن به ولو بما عجلوا وقابلوها من مخلص الجمان في مثل هذه الأوقات الفارقة وعلى لحظاتها الخارقة ما بين صحرها الموعود وفجرها المشهود بل وصبحها المنشور طلع أعظم المفقود سيد الوجود وعالم الشهور أكرم من تخلى بالسخاء والجود أعني سيد الكونين جد السبتين وفقيد الثقلين صاحب المحجة البيضاء ذا الوجه الوضاء والعارضة الغراء لله ثغرك آسرا لما ابتسم أكرم بوجه إذ بدا كالبدر تم سحر القلوب بحسنه وجماله فنزير خلقك لا يرى حق النعم ذاكم هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيها الخليفة العام نهني سيارتكم على هذه الاحتفالية العظيمة كما نهنئ في هذا المقام من حبه في دمي يجري إلى الأبد وطيفه لم يزل يختط في كبدي من كان في الدين إنحالا ومرتحلا منارة للعلا والسعد في البلد أعني به سيدي مولاي فخرتنا الحاج صلى بن فاود الولي سندي أعطاه ربي أسرارا وفضله على كثير فسبحان الولي استمر أيها الحفظ الكريم فإن تعجب فعجب صاحب هذا المقام النبي الهمام الذي في تبلغه لا يلام من أظله الغمام وهو شرق غلام إنه رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام فخامة الخليفة أدام الله ظلكم فإننا لم نأستر بشيء بعد الله ورسوله خير من الاحتفاء بآثاركم الحميدة وأسلافكم المجيدة يكفي انتسابي إلى الأسلاف مفخرة أحمي حماهم وإن لم أحسن العملات فهل على أخرس إن لم يبن حرج ماذا على أكمه إن لم يرى الشعلاء وما على أجزم إن لم يصب غرضا أو ما على العير إن لم يعرب الجملاء سيادة الخليفة اسمحونا في الختام مد الله في عمركم وأبلغكم المنى وكفاكم كل شر ممتعين بصحة وعافية أن نوشح كلمتنا بقصيدة خصصت لصاحب هذه الليلة المباركة لعل الله أن يلحقنا بالأصفياء ويحشرنا مع الأوفياء ويجعلنا بها في زمرة الأقياء أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أفي الكون وجه مثل وجهك باديا أصغر تحدى حسن صغرك ضاهيا أيوسف قد ضاهاك في الحسن باسما أفي العلو أم في السفل سنك ثاويا فلا صاحبات الخدر جدن بمثله وإن كان من أنجبن في الشأو عاليا أفي طية الإمكان مثل محمد أفي طية الإمكان مثل محمد أنادي فلا ألفي مجيبا ندائيا فلم أرى من أهل النبوة واصلا ولا بينه موحا رسولا مدانيا فلم تبق من بحر الفضائل غير ما به يدرك القوم الكرام العواليا فأنت رسول الله مضرب سعدة وقد كان مهد السعد قبلك خاويا فلا شائن يرقى لأصلك كيفما تقلبت تاتي في أصولك صافيا ورقبتك المسلى كقالب فضة وأصبح دون الشك ريقك شافيا إذا كان يمشي يأسر الجد خطوه مهيبا يرى فوق المنابر داعيا حيي غضيض الطرف ليس بصاحب ليس بصاحب عطير كفوح المسك يلقي الزواكيا يضيء كشمس في الضحى غير أنها تغيب ونور البدر يأبى التلاشيا إذا ما تردى بردة فوق ناقة رأيت نبيا حسنه ليس عاديا لسقطك رب رب العرش يسقط غالبا ويرضى إذا ما كان قلبك راضيا بعثت رسول الله في كل خلقه تسوق جميعا نحو ربك هاديا صفوح عن الزلات قبل ارتكابها رؤوف رحيما ليس يوما معاديا تمنى على الرحمن أن ليس واحد من الملة السمحاء يدخل هاوية فكم بات يطوي البطن من أجل مصغب ويحيي الليالي بالعبادة باكيا فهذا الذي عيساه بشر قومه وذاك الذي جبريل أوحى المسانيا يجود فيضفي بالمكارم والعطاء على كل من يأتي ومن ليس جائيا فلا تذكروا معه من الحسن يوسفا ولا حاتم الطائي إذا صح عاطيا وفي حلبة الشجعان كنت أميرهم وما زال للأيتام حضنك آبيا فكل الذي في الحب طه مقدس فكل الذي في الحب طه مقدس زكيا طهورا حيثما كان آتيا فأنشد له شعرا إذا كنت شاعرا وإلا فكن عبد العزيز باي مضاهيا يغني بمدح المصطفى كل ليلة فلم يق يوما من سنة الحب صاحيا عييت فلم أقدر على حصر من طوت معانيك من فخر دراكا لحاليا أيا نجل عبد الله حبيا هل ترى مدى الحب والتوقير حل حشائيا عليك صلاة الله في كل لمحة تحقق للمرمى وتعطي المناليا مع الآل والأصحاب ما نار كوكب وما زال قوم يقطفون المعاليات هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشكرا ولا jërëjëf sàll ma yoro ñepp bek nañu de di wolof ñay doom mbeur jangil beure dess na la ñam waye sàll ma yoro tubarkàlla macha allah ana baye sa ñay yow bay boo nga egsi rek kon ñu àndandoo ñun ñépp nag déglu sëñ bi mu am lu mu waxanteeg taalibe yi lu mu waxanteeg mbokk yeeg dëkkandoo yeeg am di jàmm yi ma bëggoon bàyyi saa njaay egsi rek benn yoon comme ñëw na bokk ci tubarkala macha allah ndax mooy sama kilifa mooy sama lépp kon sëñ Cheikh Oumar waaw Baye Sandiaye ñu ni nga egsi def ni nga daan def la waaja waxoon dalaa dab guddee ma dab ak lëndëm ne maa ngi ci yoon kon bu yàlla defee nga egsi te fee egsee foofu la ñu téyeloon la kon boo ñëwee lii def mooy jël lépp delloo la ko aleykum salaam wa rahmatullah wallaay wax nga dëgg de Baye Sa Ndiaye waxal rek ñëw ci lii boobu <laughs> ngeen ñëw waaw waaw waaw léegi Baye Sa programme bi dafa changé tey sëñ Omar Sall dafa waxtaan léegi dañuy jox sëñ bi bu nu paree alaaj si doog commencé waxtaan noonu la programme bi doxo tey ndox bi nga egsee à l'heure kon bisimilah yaa ngoog sëñ baa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 te wolof dafa wax ni ñaan bu nangoo sonal boroom ndax fas wolof yi wax nañu ni wenn fas wenn taat ci wenn fas la mën a war waaye dafa fekk nag mu mën a am waaye bu munta amit foog nga séddale ko moo waral lool fi ma jóge léegi bi ma fay départ minuit wi jot na waaye dama wax ni bu ma doon yegg ci fekk fajar jot ñiy ñaani danaa teew ci kanamam ba mu xam ni fu ma mën a ne jamono moo fa njët ak moom ma ñeme ko ndax moom xam naa ni bu ma ko xañee tey it du ma mere te am na ñoo xam ni bu ma leen xañee tey ñu mere ma sàll ñoo ngi jégglu tey nuyoo kon Bismillah. mbokk yi sëriñ bi ne asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ne mi ngi nuyu ñëpp ne day seede kenn ku nekk ci yéen siyaare bi yàlla ci moom di ñaan yàlla jataay bi ne yàlla na nu ko fi toogaay jataay yu yàgg lool ne kenn ku nekk wéradi gi nga yëgoon ci sa yaram wér péng ne la nga la aju woon ci sa wàllu yàlla yàlla defal la lépp ne ñu ngi koy ñaan yàlla yàlla boole nu ko defal ne fi muy jëkkee ne sunu kilifa ne di sunu kilifa ne di ñaan yàlla mu saxalaat ko fi ne lu ëpp li mu ko fi saxaloon ne martabaam ci wàllu yàlla yokku ba ne ba àgg fu foogul woon ne muy sëriñ mbay Mansour ne yal yàlla yokk ak nekkam yàggal ko ne lépp lu bëgg ci wàllu yàlla moo njabootam ak i bokkam yàlla defal ko lu ëpp loolu ne ni ko koy ñaanal yàlla ne xilaafaam gi nekk ci loxoom ne jombu ko de ne da koo donn baaxam ak yiweem may na ko lu ne ne mënu koo may lu ëpp xilaafa ne waaye mën na koo may xilaafa ne moom ñi ko nangul ak xilaafam moom sëriñ bi tey ci la bokk ne yàlla na fi gën a yàggaat di ko sant ne waykatam yii mu yabal si nee taw bu ko neexoon du am nee gàmmu gi nee bu xaatigo ñëwoon ni du am nee sëriñ bi ne dana ko ca fekk nee ci lu wóor ndax nun nee Seydi Hadji Malick radiyallahu taala nee moom dong la nu bëgg gannaaw yàlla yonent bi sallallahu alayhi ak Cheikh na Tidiane radiyallahu taala anhu nee sunu lépp mi ngi ci loxoom moom ñuy ñaan yàlla ñee ña yàlla di sedd gën jaa gi cër ne jaarale ko ci loxoom Seydi Hadji Malick ne kenn ku nekk ci nun yàlla nga am lépp loolu ne sunu cofeel ci Seex Seydi Hadji Malick ak njabootam danu ko donn ne fortaatu ko ne senu maam Mayoro Sall radiyallahu taala anhu meññ sunuy waajur ñu meññinu ne dafa bëggoon saydi aji malik radiyallahu taala anhu mba tudde ko seydil xawmi loolu la ko daan wooye ne maamam it bëgg saydi aji malik ba nga xam ni ne sunuy nopp ne ka mu ka am ne ci njaboot nee da ko tuddee Seydi Hadj Malick radiyallahu taala anhu yàlla weddi ne keneen ñëwaat di góor mu ne Alaaji Malick yàlla weddi waat mu amaat keneen muy góor muy Alaaji Malick sama maam ni ko ay Mayoro Sall ne bul suul sunu doom yi ne kooku tuddee yàlla jël ko ne sàkkal keneen koo ko tuddee mu ne ko seedeel ni fu fekkoon ni damay am ay doom ne ba amatuma benn doom bu góor am doom bu jigéen ne alhaj mali rek laa koy tudde radiallahu taala anhu ne su ma amatul kenn ne sama fas yi ne ma sopp ci benn aw fas ne tudde ko alhaj mali ne su ma ko amul eh sama doom jigéen yi ma soppi seen tur tudd leen Alaaji Malik ne su ma ko amatul ne yéen ñii samay soxna ne seen turi waajur yi ngeen indaali sama kër mais ma soppi seen tur ne tudd leen Alaaji Malik ne ana ku ngeen dégg mu wax lu mel loolu ci ma Alaaji Malik radiyallahu taala anhu far yàlla nee sama baay nee moom baayam moom mii dikk nee di góor nee mu tudde ko alhaji malik nee sama maam Fatou Wade ŋàbb ko nee ba ñëw ci ma alhaji malik nee ni ko si man day sama doom yi maa ngi ñett ñoo xam ni nee kenn ku alhaji malik lañ ko tudde yàlla weddi mu ne nganam-nganam ni tëf nee ni ko kii de yaakaar naa ni dund nee muy waajuram moom mi ne ana ku ngeen dégg mu jaar foofu moom day déggunu ko nuy déggunu ko de ne cofeel googu ne moom la doon ci moom ne Seydi Aj Malik rekk laa bëgg ak nun ne nag ko ñépp seedeel ne njabootam gi ne Seydi Hadji Malick fa mu taxawoon ak sunuy maam ne fa taxaw ak njaboot gi ne ka gën tuuti ci njaboot gi ne ci njaboot gi ne mu ngi koy jàppe ka gën a màgg ci këram ne lii nag ne ne du ko fi caaxaan ne moo nekk ci man ne ba loolu wiyee nee mi ngi gërëm nee waa tant bi nee waa tant bi sëriñ bi nee mi ngi leen di gërëm nee ku fi toog rek muy góor muy jigéen maa ngi lay gërëm jigéen ñi nag nee bu ma gërëmee góor ñi fukk moom téeméer laa leen gërëm nee mi ngi la maa ngi leen di gërëm di leen sant nee tàmbalee ca waañ wa ak ba ca tànt ba nee gannaaw lépp yéen nee mi ngi delluwaat nuyu ñëpp nee di nuyu sunu baay nee di ku baax doon baax nee sëriñ tafsir saaxo baay tafsir euh, sëriñ Maodo nee mi ngi lay nuyu mi ngi lay siyaare ne siyaaru istimdaariya ah siyaatul mujaamila ne xeeti siyaar yi dafa bari am na siyaartu tabaro jaari taxalu ak taxanu ak taxanu ne siyaar yëpp mi ngi la koy siyaar ne di seedeel sunu wayskat yi ñoom Abdou Aziz ne fu ngeen toog rek ñëpp bég ne am na ba noppi ne ci barke Seydi Aj Malik ne yàlla yàgg te yokku ne sunu gone yi ne ci sunu kanam ne tant tant bi defar lépp ba mu àgg fii ay taalibe di ay doom mi ngi gërëm ñëpp ne fi muy wodde wax ji ne doom baayam bii nee di Baba Sarr dëkk ngeen géneew nee di doomu maam Alaaji Moustapha Sarr nee bàyyi ko ngin géneew ba fii ak ñamu àndal neex jàppale sinu ñu ngi lay gërëm di la ñaanal yàlla di la yëgal ni nee fu yëg tàmbalee ci nit ak moroom ma tàmbalee naa ko fa ba fa mu àgg sama diggante ak yow ne mi ngi nuy ñëpp bàyyiwuma kenn bàyyiwuma kenn ne waxtu wi dafa xat ne ki doon wax léegi sama dooma ne Seexu Omar Fuuti Sall la tudd ne wax ji mënu koo firi dafa xat waaye ñu bëgg lu manqué woon bu Cheikh Omar pare mais Baye Tafsir sa gàmmoo sa gàmmoo ngoog bu neexee yow a bu naqaree nee te naqari te naqari yow a ñu ngi lay déglu di la taatan ne yàlla yàlla ubbi sa xol ubbi sa xel ubbi sa xalaat mais ba lépp aw yoon nu raw na mu daan mele Cheikh Omar yow sama rakk nga sama doomu ndey nga sama lépp nga nee lu ma nee nga ne ca neel yàlla yàlla guddal sa fan nee guddal sunu fan nee delluy gërëm nee njabootu alaaji Malick Sall gépp ñi fi ne ak ñi fi ne fekke ko ak ñi fi bëgg ne te fekke ko mi ngi nuyu ñëpp nee eh, ki fi toog toogal fi boppam ak ñëpp ne Serigne Moustapha Sall ne di sama rak ne di sama mom ni jayam la bayam la gamu gi at muné mi ngi ñaan fekke ko yalla ngi koy may mu di ko fekke yalla jëm kanam ne ñi ñewul ngir gant nangul dañu leen seen gant di del ñaan nak ne sunu khalifa nun ñepp nee di njabootu Mayoro Sall ak Alaaji Sall muy Anta Sall nee mooy sun taawu baay nee day jigéen fekkoon ni góor la nee moom muy kon fii mu toog fi lay toog ñoom ñëpp ñu toog ci suuf yàlla yàlla guddal fanam ak rabatu adwiya muy soxna Mariam sàll ak njabootam ak sunu jarbaat ne ak lépp loo xam ne lu nu ne mu ne ca ñu naan ko as sàll ne sa baayam lañ ko tuddee ne teraanga ji mu séq ak moom ne ci gàmmu maamam gi ne moom gàmmoogul de ne bu leen wax gàmmu sëriñ Maodo Sall ne gàmmu gi bàyyi Alaaji Sall ko moom ne dañ koy teel gàmmoom rek ne moom da koy teel di ko gàmmool rek waaye moom gàmmoogul ne xaw ma at mu muy ne ak nu muy nekke waaye moom gàmmoogul ne lii la bëggoon a wax sunu bokk ci saalum yi bawol yi kajoor yi ne ak fu waay mën a bàyyi ko ñu ngi lay gërëm di la sant gis nañu seen teewaay ak seen taxawaay yépp ne nee ngi dellu sant yàlla di leen sant ne delluy gërëm ee eh, rakkam njërbaatam mooy Serigne Lamine Sall ne mi ngi nii ci gannaawam ne fu taxaw taxaw dafa fa ne bu fekkee amul ngant ne yàlla na ngant néew ñu ngi seetlu sant ñëpp di saare ñëpp ne lii yàlla na yàgg ne sëriñ baaba ñu ngi lay bége di kontaan ci yow lu boroom xam-xam nga saayir nga ci baatin danga koy nëbb rek waaye ko baax nga nee la sa bàyyi amoon nag neel la nga am lépp loola ñee ñu ngi la koy ñaanal yàlla nee yo teewaay bi rëy na ci nun de nee kilifa gu toll na yow doon li nga doon bàyyi ko fa nga bàyyi ko làq la ngay làq ci mbooloo ba nga tax nga bàyyi ñépp dikk fii di ma jàppale bu dul ci man ne jarul ma ko defal ne rëy na ci man ne nag ba nga fab sa doom jël sa bopp laajoo ma dërëm defaloo ma dara boole kook sa teraanga seer ak baatin ni ma ma ngoog may ñaan yal na barkeel yal na yàlla may njabootu barke ne nun ñëpp nu fekke ko tatal ko ne lii laa bëggoon a wax bu jubee yàlla la bu dondee ci man ma sama Assalamu asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu sëriñ bi dara du ci dëng jërë ngeen jëf ci sàkkalaaw xayran yàlla yàlla barkeel dafa am lu nijaay Maodo Sall wax ci maam ma yoro Sall bi maam Mayoro Sàll génne àdduna sëriñ Babacar si radiallahu taala dem ngiig di ko jaale ji bi mu duggee armeel yi dafa ñëw ci alaaji Amadou Wadd mi jur soxna Faatu Wadd soxna Faatu Wadd jur sunu maam alaaji Sàll mi way juru sëñ Maodo bi Seydi Xaaji Malick jëmee ci maam Mayoro dafa sukk ci bàmmeel bi ñu ni ko sëñ Babacar pourtant góor gi alaaji Amadou Wadd day moom kilifa la te mook sa woy jur la mu ni waaye Mayoro sàll dafa génn ci bàmmeel bi gàttanduma sëñ Maodo li mu ni seen digganteeg Tiwaawan usratu malikiya ak usratu alxaaji Ahmad Wade ak Mayoro Sall dafa yàgg ndax maam Mayoro Sall Mayoro Ñang moo ko jox tariqa Seydi Cheikh Ahmada Tijaani dëkk Tanim Mayoro Ñang alxaaji Ahmad jox ko tariqa bi bi alaaji Amadou Wade nekkee ngi maam ma yoro ñang génn àdduna maam ma yoro Sali jóge nja jaayeen sa teg alaaji Amadou Wade bi mooy sëriñam werd ba maam ma yoro sàll jukkoom jooju doy ko ci la maam alaaji Amadou Wade di jël soxna faa Wade may ko ba pare boole kook Seydil Hadji Malick moo tax sëñ Abbas moom bi muy way Seydil Hadji Malick mu ni wa bi saniyi al aalimi suniyi malikina xutbil wara sariyi mu ni maa ngi ñaañ ci dara yi ki nga xam ni sang la tey boroom xam-xam te nekk ku suniyu ñu mel na dañu ko kooku kana mu ni kooku boo ko xamul maaliki naa mooy sunu maalik xutbil waraa koo koy xut bu nga xam ni xut bu mbindéef yépp asarika di sang kon sëñ Maodo li mu wax rek laa doon gën a confirmer ci limam ma yoroni woon sama ëtt bi bu fi maalik daaguwul kenn du fi daagu asalaamualeykum wa rahmatullah alaaji Amad Fall teew fii ci ndégalal imam ratib grande mosquée bu sàkkal alaaji Ousmane Dieye muy fàttali gàmmu ziyaare Mérina Sall bi baayam daan defal woy juróom ca Mérina Sall le 11 avril waaye di wax ni nag jàng yi ñu ngi koy def en direct RTS Saint-Louis ki koy def mooy Saliou Diop ak Amdi Niang محمد لمنك نزل كرمي لمن مولاد عمي لمنك نزل كرمي محمد لمن مولاد مقي ngeen bal ma nu nuyuwaat leen way ngeen du ko def dafa am nag lu xew. diir bu may dem safar. ndax ñii toog bu ma mës a daje ak ñoom rek lamb naa sama poos yëkkati joxe tey nag poos bi dara néewu ci te yéen a fi ne kenn ku nekk na ma fekk fii su fekkee li ñuy woote dëgg la ci nun danaa ci def nag waaye it damay laaj teel ñaari junni laa la daan jox waaw téere dama bëgg ma ci li wér te war mooy bu ngeen ñëwul du gàmmu maa la ko wax bu ngeen ñëwul du gàmmu de li wér te war mooy laajuma ko def ci sama poos laajuma it yóbbu ko laajuma ko it pour moom mu manqué xaalis laajuma ko it pour moom mu wax ma ko laajuma ko it nag teraanga la suñu ko war a amee munu diggante ak moom jërëjëf jërëjëf jërëjëf ñi ne ko def identi wallaay jërëjëf Sall li tax marabu nangul ko li tax wallaay ngeen baal jërëjëf jërëjëf wallaay jërëjëf ci sakalaaw xayran jërë ngeen jëf li tax ma wax ko mooy sag la ci nun teraanga la ci nun ndax bisu Serigne Maodo bii nun amuñu lu dul moom kon moom bu bàyyee bis yëpp ñëw ci bis bii war nañu koo won suñu diggante ak moom ak Serigne Maodo loolu moo waral li may laaj ma di ko laaj waaye di bëgg te war mooy li nu koy jox benn nit asaka jam man nga ko koo jox te du ko laaj waaye nag damay wax ne fu mu nit danga ko koy wan te it wax naa ni man lu ma waay yéene defal ma ko bala maa dee waaw lu ma waay yéene laa wax dama ni defal ma ko bala maa dee wax la ko li wér te wër Abdou jërë ngeen jëf ci sakalaaw nii ma koy defee nii sëñ Bay Mansour gën a bañ ku laaj ci àdduna bi waaye moom mii dong la ko nangoo ci itam محمد لمن كنز الكرم محمد لمن مولى نعمي محمد لمن كنز الكرم محمد لمن مولى نعمي محمد لمن كنز الكرم محمد لمن مولى نعمي محمد لمن كنز الكرم محمد لمن حميد منك نزل الكرم محمد الأمين عليكم سلام الله عليكم ورحمة الله عليكم وبركاته عليكم وعلينا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمامهم وعلى آله وأصحابه وخلفائه ومن اعتدى biatihim ila yevmiddini. jërëjëf alxalifa haz Malick Maodo Sall ñu ngi lay ndokkeel te di la nuyu di la nuyu di la siyaara di la siyaara di la ñaanal yàlla sa wér yokku ak sa jàmm aar la sàmm la sàmmanu sàmm njaboot gi sa mbokk di sunu sëriñ waaye di sa xarit di sa wóllëre xalif général de Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour mu ngi laa nuyu mu ngi laa nuyu mu ngi laa ndokkeel mu ngi laa ñaanalit yàlla nu ngi tàggoo ci dix mu am lu mu wax wax ja am na solo waaye ñaan go yal na ko yàlla nangu li nga wax yépp ca diggante mag ña ni nga ko waxee noonu la ko waxe di waxit ne ni nga ko jàppe noon la ko jàppe ndax wóllëre bu magee sa juddu danga cay teey wóllëre su magee sa juddu lu bari romb lu bari jaar loo fekkewul waaye mag ña sosoon ko nas ko dañuy ñaan yàlla loola nu ànd ak moom ba fekki mag ña sëriñ baa ngi lay nuyu mu ngi nuyu sa njaboot bopp gi ngeen bokk mu ngi lay ñaanal yàlla ni koy ñaanale yàlla bàyyi na la xel ni ko bàyyee xel ndax du yeen ñaar la déedéet du yeen ñaar du sax bàyyi ya maam ya la lu maam ya àndoon nag bàyyi ñëw ànd ca sët ya ñëw ànd ca nuru na na xaw yàgg waaye yal na gën a yàgg ba ca sët yaa sëtaat sëtaataat yaa ba ñuy uf bufte bi wóllëre googu ak bokkoo googu ak jàmmoo jooju ak xaritoo googu yal na ko yàlla saxal te yokk maa ngi nuyu kilifa yi fi toog yépp di leen siyaara saa njaay nu ngi lay delloo nuyoo di la ñaanal yàlla mu gu ànd ak wér ku gis sëriñ bi rek xelam dem ci yow ku la gisit xelam dem ci sëriñ bi yëf yi nag dafa am gën a lante nu foofu ko waxte dee benn yoon gën a lante gi fés na trop أما سماني وفاة الجد جد زانا من أما سماني وفاة الجد زانا من وآتم ونصر ونذي الكرم

Yeah. المسلمين وما شر ونبي الكافرين

sëñ Alhaji Malick yàlla nanu ko yàlla fayal moom Maodo waxoon naa la barke bii Abdoul Aziz ca Kaolack ca Bousra ne la Maodo noppal na njabootam Seydi Hadji Malick noppal na njabootam ngi bëgg a bari de ma jël bii ban la bii la bii wala bële waxoon naa la ca Kaolack ca Bousra ne la Maodo noppal na njabootam melagul nam war mel lu tax ma ne soralul njabootam ci ñu utal ka layu sariya wala wu aqiqa bépp kilifa bu jégg sariya sonal nga sa njaboot dañ lay jéem a layale aqiqa te aqiqa mënta atte sariya ma ne Sida ji Malick noppal na njabootam jéggiwul sariya pour ñuy ko layale aqiqa te bépp kilifa bu jéggi sariya andil nga sag njaboot ñu jéem laa layale aqiqa te ma ne aqiqa man ta atte sariya jërëjëf Sida ji Malick soxna yi ñu ngi leen di nuyu da ngeen jërë nuyu lool yéen wax naa ko bii ci kanamu xalifa bi wax naa ne am jabar ju baax moo gën am jëkkër ju baax Cheikh Omar yu taal dañu ko laaj ca Fuuta ndax góor gu mel ni sa way jur wu góor amati na mu ne hakay du jeex waaye jigéen ju mel ni sama ndey amatul waaw fiil yi nag moom xaw ma nu ngeen def ba mu defee nii waaye daal ah léeg-léeg mu téqatal ma te téqatalu am na lu muy jur te loola day jur leneen Cheikh Oumar yaayam kenn mënu kenn jigéen mi mënu la loolu la bàyyam wax mu ne Seexu Umar benn jigéen mel ni way juram wu jigéen ma ne ko loolu la way juram wax kon ma ne am soxna su baax moo gën am jëkkër ju baax kon soxna yu tedd yii nga xam ne bu ñu demee aljana nu dem aljana xam nga nun góor ñi dañuy santas jigéen yi naan bu ngeen amul sunu ngërëm ku jaamuwul sa jëkkër ku ko raamalul ku ko nangamul dañ leen di nax rek toos xam nga lu wér ngërëmal ku yàlla gërëm mën naa jur njariñ jëkkër su amee ngërëmal yàlla ku mu gërëm yàlla gërëm la ku amul ngërëmul yàlla koo gërëm sero ma ne madama dàq say aja madama gën a nooy pooj aja borom robb bu gàtta boobu ànd ak waa jooju mu lonk loxoom mada moo gën a sonn aja ci museeg àllaaji waaye toonuk madam ci musee yalla dige wu ca dara waye cionuk aja ci allah ji yalla dige na ca dara allah ji dafa déggal yalla muse weddi yalla motax tax ngërëmal du am njariñ waye ngërëmal allah ji menangul yalla day am njariñ yal na yalla fay leen Diop. waaw Baye Tamsir. dama guddee waaw waaye maa ngi ñëw. man dama fanaan àll. waaye damaa ñaan yàlla bët sete ma fi. léegi li ma xëyaale woon jeex na waaye bu soobee yàlla bu altine danaa la mandat cinquante mille francs bàyyi saako waaw du ma laaj kenn ku ñëw nag baax na waaye li wér daal moom bu soobee yàlla bu altine danaa ko mandaté cinquante mille soo ko waxee ma nangu ko ba nga ànd rek njabootu kër gi ñu seet si ma Dakar bi muy laata wax benn baat dafa génn fukki junni teg kon su ko waxe fi man nangul ko ko booba baaxoon na waaye bii ñëwee gën a baax dooma laaj lu tax dama am siara ca ngapor ku xol télévision bi ba nga déglu radio bi da ka dégg ba nga gis ko té samedi la ma bëgg nak yu bari ak ceeb bu bari ak dawlin yu bari di wax ji malik Maodo Sall mu ñaanal ma ci barké mak barké mag ñi ndax yàlla yombal lépp maa ngi dem ma ne ku sa jabar dem aljana nga dem aljana dañ leen di nax rek li jabar di yóbbu jëkkëram aljana moo ëpp li jëkkër di yóbbu jabar aljana ma wax la ko tey dama leen bëgg a yee parce que nelaw yi yàgg na nuy leen nax rek li wóor moo di ku sa jabar dem aljana nga dem aljana waaye du ku sa jëkkër dem soxna dem aljana rek nga dem aljana ak loo yaafus yaafus xam nga lu tax daawud aljana célibataire du fa ne ku fa dugg am jëkkër te malaaka du takk jabar sa jëkkër ji woon ci àddina mooy sa jëkkër ci aljana soo jekkee te jekkul yàlla fab jekk deem rof ko ceg jekk ngeen ànd jekk awal tey nag nu ngiy tàmbaleeg Sidaaji Malik ci juróom ñetti at yonent bi cig dundam juróom-ñetti ati na bi cig dundam ci la Siraaji Malik def film bi tey nu ànd siiwar ko nag nu ànd siiwar kaddu Seydi Malik ku tedd ki sallallahu alayhi wa sallam moo gën ku yàlla bind waxal na ko boppam dañu wax ne bu la yàlla bindee ci jikko yi bañ a rëy baaw wax naa la sànq ci tàkkusaan ci waxtaan wowoon ca dëkk ba te ñuy wax jàmm ca gaaya ma laaj la yow Abdul Aziz lanay mën a tax nu bëggante nun bëggante leen àndante leen jàppante leen mais day am sabab bëggante day am sabab hadis ba Buxaari yi wax na ko Muslim wax na ko foo déggee say xaani nag ci hadiskat yi mooy Buxaari ak Muslim ñoo ci gën a wér fu ñu daje rek mooy xaalis yi bu tafaqun ñoom d'accord nañu ci lii ma dem xam nga li lu gën a gaaw ci bëggante mooy jëriñante lan tadxulal jannata ata toomino walan toomino ata tahabo walan tahabo ata tahado bëggante du am te jëriñante amul ma ne bëggante du am te jëriñante amul mënuma dëkk ak yow nga denc million awma lu ma reere nga bëgg ma bëgg la du la bëgg taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ilmi wal udwaan ma ne taawanu alal birri lan mooy birri تعاونوا على البر لان موي بيرو ليس البر تبقر أن تولوا وجوهكم خبال المشرق والمغرب لان لا من أمر بالله والعقري والملائكة وكتابي والنبيين جانجل دم yëg nga ne loo mën a mën a naafila waxuma ju liggéey ak tàkkusaan ak tibis loo mën a mën a mën a naa fi la yow te den ndeeg ko te denc million ci sa koof den ndeeg amul lu mu ndékki yàlla delloo la sax naa la ma waxaat li ma waxoon loo mën a mën a mën a naa fi la laa wax fanaan ca téeméeri rakk junniy rakk naa filaal ba jant fenk dende ku amul lu mu fande dama ne yàlla delloo la la nga naafile woon man baata hënaan eh, wa jaarowu lu ca topp fa kon dootoo jullit ah, bokkatoo ca nebee ko wax yërënta baa ngoog moo gën lu yàlla bind neel waaw moo gën ku yàlla bind neel waaw waxal na ko boppam dañu wax ne soo ñàkkee rëy ca jikko yàlla jox la wërsëg wu lew te dagan bokkul xalaalaan bokkul ak tayiban bii day lew te dagan mooy xalaalaan tayiban na lew fa mu jógee na dagan ci jullit war ko lekk bu xalaalee te tayibul doo ko lekk su tayibee te xalaalul doo ko lekk foog xalaalaan tayyiban soo bëggee nag mu gën a leer xalaal lu dagan lu dagan du lu dagan lu ne nga lekk ko lu dagan da ngay fexe ba am njëgg bul ko sàcc amal njëgg tayyiban ak xalaal ma ne day lew te dagan wala mu dagan telew bu ci manqué baaxul na dagan d'abord xarum tubaab bee daganul jullit yàlla waxul nu lekk ko mais waxuñu nga sàcc xar mi nag kon bu xalaal rek ma ne buteelu sàngara araamul nga liggéey ba weer wi feeku ci xaalis lewu la doom nga jënd sa sàngara ma ne bu xalaalee taybul day nekk xalaalaan taybal bi toggalu ñam xalaa alaan taybaan invité saaba yi ñu daju mu ñàkkuk rey nag dañu wax nekku ku ko def ak say xarit a sexal leen sa yaram araam na safara ana sama baraaya Abdoulaye Sy ma dem mu toggal lu lew te dagaan sallallahu alayhi wa sallam yi ne faxsiloo وقولوا بسم الله وقولوا raxasu leen te wax bismillahi tel kuy lekk ko mu doon nag kul mi maa ka bul jéggi sa karam dem ci karamu karim yéen may dégg ndebi raxasu sabe raxasu mu ne ca coppet benn benn mors ne ka seex ne pàcca muuñ ak ba bi rafet yooyu ne ku yàlla bind maa la gën sabe sëgg mu ne laa faxra tiitaru taxul su ma doon tiitaru wax lu ëpp loolu ñu ne kon lu muy wax ñu ne kon daf naan ku yàlla bind maa tax mu bind la ay na huwa moo bëla nii ak soon ku yàlla bind maa la gën puukare taxul su ma doon puukare wax lu ëpp loolu ñu ne kon lu muy wax ñu ne kon def naan ku yàlla bind maa tax moom la Sida maal di nettali nag ak njëlbeenam cig tumuranke ci famille bàyyi ba teel lool xamu ko judduwul ñeenti at ndey ja dem sàq واي واخي واخ بايف امينتو واخ ناي واخ بايف امينتو سي الله لا دي امول كوكو دوغالي امول كوكو ويتالي امول كوكو تيل تيرم مام امينتو امو ايمانا گلم دي بو وارون لولا سي داجي مالك واخ واي سوخنا سا واينا دور دم برساخ xam nga lu mu wax doomam bi tedd jooju dafa ko ne jàkk xool na ci sukuraat nag yoo su ma dundoon doom ba fekkee la ëllëg ni nga doon dara de bi ma lëmbee malaaka yi wax ak man di sàkk yàlla wutal lu gën li ngeen joxe barke yonente bi sallallahu alayhi wa su ma fekke woon sa ëllëg kon di doon dara yow xam naa ne li yàlla def ci yow ma ëmb lay wax ak malaaka yi ngay wax ak malaaka yi may dégg nga judd ur ay nii teeru la ñu xotti asmaan juróom-ñaar yóbbu la fa présenté la malaaka yëpp ak diiwaan yëpp ba ñëpp xam la ñu sangale sel sabil naanal la naanal la kaw sara nga door a cëppeelu andiwaale lu tëbu set su ma fekkoon ëllëg dara ci yow billaay di nga doon dara waaye kullu aatinaatin kullu jadidin baalin kullu hayyin mayitin ana maytatun wa taraktu xayraan wa walatu saydan ne xoret dem alaxir luy ñëw too dëpp day agsi luy ñëw te dëpp soo ko xaaree mu fekk la fa kulu xaatir wa kulu jadidin baalin lu fi yàgg te yees di nga ma lu fi yàgg te yeesoon soo fi yàggee yàgg def la dara inal jadidey ni sama sawla yaa ala adda yaa ulil bilad ku fi yàgg yàgg def la dara man yëg naa ne kulu baalin yëg naa ne kul hëyin mayiteen ku dunda di nga dee xam naa man aminatu ne du ma jóg fii ma tëdd waaye gàcce gaalaama jur naa sanga wacc naaw yiw jaru ko jurul sang sangub sangi sanga yi yaa ko wax léegi di sangub sangi sanga sanga yi si daa ji ne aminatu nelaw na ca juróom benn atam ya maamam saybatal am di moo jur baayam abdoulahi maam baay ba dee na maam jaa ngi dund maamay a bëgg sët maam ñu naka cas yóbbu këram na bee ci quatre ans si daa ji ne góor ga yoraat naka yeneen quatre ans ñaata muy huit ci la Maodo départ nag ama samaani wafaatul jaddi seen karami ama samaani wafaatu ano sarwaana seen karami ama samaani wafaatu haatimi jawa seen karami këramii gella war la ci grammaire saraf la fu ko neex dugg baax na pour góor baax na pour jigéen baax na pour jamoo nangu na mufrat nangu na jullit nangu na yéefar këram si daaji Malick ne ku def loolu ginnaaw bi ma afee kuy foto kuy wax doo bàyyi ba mu af ne ŋàpp ngay ko doora photo da bàyyi beeg tuñ ya daje nga door koo photo wax wax dafa jekkul wax dafa jekkul koo xam ne oh, eh, ku la yur lu seen sa làmmiñ wu ndaw ca biir <coughs> ah? لما دون واخ سي الكرامي سي الحاج مالك مولى كي جروم نيتي اتي نجول مكه ني نوا اوسي مي وفات الجد تاع العمي ديوك ماما كوي كوكو سي من سي الكرامي موي بروم درج جوري غورغو امون هيبه لا نم سي بتر عمي ku amoon caractère la Cheikh Badar Amdi ku fit la Cheikh Badar Amdi moo dajeeg Abraha tey rek na baa bii la jë moo ñaan moo dajeeg tey rek na baa bii la jë gu tedd googu la Sidaa ji Malick juróom ñetti ati njool Makka ñu ne waaw si mu ne wa faatul jaddi ca la amee lan deew maamam bu góor loolu leer na ama samaani juróom ñetti ati njool màkka ñu waaw si mu ne wa faatu anoo sarwaana ca la kuy kooku sil kërami borom guur gu rëy ama samaani ñu waaw si mu ne juróom jëtti at yi na bi ñu ne waaw mu ne waa faatu xaatim ca la amee kuy kooku si sil këram yi tab gu réy ah, ama samaani wa faatul maamam ja ci juróom-ñetti atam la amee kuy kooku si mu ne sil këram yi borom daraja ju rëy këram yi doogu daraja la ama samaani juróom-ñetti at ci dundug njool makka ñu ne waaw si mu ne wa faatul jëddi ca ca la amee faatu anoo sarwaana mooy kan moom sil këram yi borom nguur gu moo doon seet l'état bi ama samaani juróom ñetti at ci dunduk Moustapha ñu ne waaw si mu ne waa faatu xaatimi jaba ca ami kuy kooku si sil këram yi borom tab gu ah, bii tab la bii daraja la bii nguur la ñett la yàlla waxal dafa jéggal ñaar ñi waaye mu song kenn ki doo ma laaj kan am na ku soxla ku wërsëgam fajul soxla gisa ko am na koo xam ne wërsëgam fajul soxlaam wala de يلا وقول لك يا ميل فرانداسو 500 غرام يلا وقول لك يا كفن كوجي توب كي ورسا غام يم كاب تي سوخلا ميل فران غا ميل فران كيب غام امو سا ميل سا هافوان

ñoo yem boobu ëppalante ëpp lool moo wax la bi ci des noonu la ñu nag ci wërsëg ki amul lu mu reere ak ki moom ba xalatu li moom ku bari le ba mënatu la contrôler la wu moom ma ne kooku ak ki amul lu mu reere ñoo yem ëppante amul foofu mu wax bi ci des xam-xam kii làkk fukki làng ak ki mënul ben làng ben benn benn benn ma ne ndax ñoo yem ci xam-xam yooyu ñett seen ëppalante laneen ëppalantewul noonu laneen Seydi Laaji Maalik wax nga ñaata àddina bi am maamam dee ginnaaw bi baayam dee ndeyam dee ñu jox ko maamam de huit de quatre à huit maam ja dee moo sidaaji Malick ñàkkuk baay ci na bi ñàkkuk ndey ci na bi ñàkkuk maam ci na bi tax na mu tumuraanki fan la mujjee mu ne lee ma wax la ko yor ak ñaataat la ko yor ak lu bokkoo moom yooleen li janabil المناقم الوسيلة لتجات المشفق الرحيم مشفق رحيم مالكنا أكمل لنا دهنا رجال إيمانا مموضنا تضيع عوائجنا يا وسيم تصبحنا فلني محمد لنا في غدا

لنا بالأب عبد لنا فبالوصية جد المشفق الرحيم علمنا لنا الدخل في محمد لنا في غدا لجنا بالعم عبد منا سن الوصية جد مشفق راعي ولا أكرنا دورنا واغفر

وصية يدي جدي مشفق الرحيم بيننا أقلنا ظلمنا اغفر لنا ظلمنا اغفر على إجماع سير قدر bépp woy Abdoul Aziz bu tàmbalee jaar ak majaróor soo tàmbalee ca bopp ba daanu poqay bu lëcc la liiñal ba gi cat la nga door a ñoddi mu dem jërë ngeen jëf yaay jigéen ñi jërë jëf maa wat yalla bi bu fekke lima jang wala lima ma ci mag ñi te gem ko ku nango joxe ben deureup ngir yonent bi kon di ngeen tedd kon tedd man damay tok di xor rek gis ni ñuy gis ni ñuy joxee addiya bi te yonent bi tax mënta ñàkk yéen nu yóbbaale aljana ma ne mënta ñàkk ñoo nu yóbbaale aljana xadaa fii xadaa mujj na ginnaaw deewu baayam maamam bii di Abdou Moutalib te mooy seeba sam di sidaaji Malick ne ginnaaw deewuk baayam ginnaaw deewuk ndeyam ginnaaw deewuk maamam xaddaa mujjana fii ci at mii li janaabil am bàyyi ba bàyyi tëx ba janaabil am mi ci kirif teefu pap pap Maodo bàyyi ya bari na ba am am na fukki doom yu góor ak benn ban la mu ne ma Manaaf mu indi maari fadak ne Abdi Manaaf a tax may wax Abdu Manaaf daf ci magoon mu ne déedéet wërtëg la ëppale déedéet xam-xam la ëppale déedéet lu waral maam ji dee Abdou Manaf ndax daf ci magoon ci bàyyi déedéet daf ci poo sëg déedéet daf ci gën a jàmbaare déedéet lu tax maam ji dee frère yëpp ne fi ñuy fab sang bi jokk Abdou Manaf Maodo ne bu mu la jaaxal min wasiyee jëddin min wasiyeti jëddin maam mi dee moo def testament te faman baddalahu baadama sami o fa innamaa ismaila sami yu badiladoo كوي جادين من مسخن كوي مسخن من رحيم خمّن من قليل سوخ كي خول ليدي موي مسخ رايمي تي جيم جيليني دو دو بغا مو غاغنو دو بغا مو فكاتالو دو بغا مو فيبر وايف Euh, euh, euh, musfiqin nag moom moo gën a xóot ndax ca xol ba lay ne dañ ciy boole ñaan mu dundate tekki xadaa fii li janaabil ammi kuy kooku abdi manaafin abdu manaaf moo jur ali abdu manaaf moo jur jaafar abdu manaaf moo jur uqaylu عبد مناف مو تشلو مو هادي خمو كو يارا خمو لوكا دي فاطمه دي بنت اسدين غورك اسدين نكو جو اسدين مومو نك مو جور قويل دي مو جور خديجه كوكو دا لو واخ الكونين وثقلين ban heure ak jot Abdou a jox micro kon ma gën a tararaar yi <laughs> waaye Abdou maa ngi gërëm njabootu Alaaji Moodu Sàll Seexu Omar mi taxawoon fii li mu xam te wax ko ku mu jox micro ci kër baayam bésu baayam teraanga tax déggoo may daa dama ne Cheikh Omar mi taxawoon fii wax ma déglu ko firiwul waaye ma jot a xam ca la mu bëgg a firi dara ma ne kooku ku mu jox micro ci bésu baayam teraanga tax maa ngi leen di gërëm ci seen taxawaay ak seen ak nangu kilifteef Baye Mayoro Sall ak Alhaji Iliman Sakho ak góor gi Pédar ñoo bokk génération demal arjiw daa fekk li ma la wax da pare nak bu doon wëllëre nag Iliman Sakho digaleeg mom yu bari yu bari lol lol lol lol ci walu yalla ak jige ci daaji malik kon su jamonoy dox ba mag ñepp dem bar sax nu desandi fi te blasis waxna la big na la khalifa bo fi gis maam la wut ba mu dess man ah, man bayila laa deug la waye xam nga laaj ji moo doon léegi suñu bàyyi tafsir xam naa ñu bari sax dina leen xaw a gëlëmal dañu xam nu mu tëdd waaye looloo tax xadaa gis nga dafa am benn kilifa chorif la waadir la jaboot la ba muy dem ba xam nga lu mu batale su ma dee na ma sama doom bii sang sang ma julleem am nay mag kooka am nay rak dañ ko laaj lu tax mu ne moom doo nga laa jur te gis ko mosuma gis mu tux benn yoon ñi ma jaboote ñépp gis naa leen ñu tux ba mu des moom kon moom la ma julli da ngay dégg nag ne li tax góor gi def te sama ne su ma fi jógee Mouhamed dañ ko jox bàyyam bii Abdou Manaaf mooy li ma la mujjee wax mu si xil la rayi min maa jur waaye moo gën ñëpp a xol kon yaakaar yëpp ji ma am ci sama sët bii moo koy mottali ëllëg xam nga ñaati at la ko waxuma la huit ans la ko yor ama sama ni du huit ans ci la ko laaj ba kañ ba quarante neuf ans yàgg na ci loxoom moo takki Xadijatu moo ngénte doom yi mais malheureusement fekkul julli juróom xam nga xadijatu fekk fi julli yi xadijatu nelaw na abdu manaaf nelaw na ba ca déwén sa ne door a riñaan jëli salaatul xam si door a gàddaay demee di tumu na war a moo tax xadratul ilaahi xadratul ilaahi am na assemblée chaque année wax naa la ko dama ko junjee te Je ne présider personnellement absent L'élément am ne présider pour nous, nous ne nabi du pour nous, nabi garde fouille leer yi mais si commencé monter monter monter monter monter monter garde ñoo xam ne sang bee ñëw parce que buñ ko defu leer gi lakk ñëpp kenn du ko attan mais bu ñëw xub bu samaan bi léeg-léeg moo diwaale kenn ci soxnaam am na ko ne gis naa njool màkka mu ñëw deux fois bi xarijatu la àndal bi aysatu la àndal mais gis naa ne ay aysatu moo ëpp xarijatu leer ah dafa fekk julli xarijatu fekkewul xarijatu fekkewul julli aysatu fekke julli li aysatu julli te xadijatu jotuloo julli moo tax aysatu ëpp xadijatu leer mu ne gis naa Moustapha mu ñëw deux fois assemblée bii aysatu la àndal bii xadijatu la àndal ma xool leen deux fois yëpp gis na aysa moo gën a leer xadijatu ba ma laali question yi dañ ma ne kii dafa fekk julli fekk asaka fekk saraxe fekk julli fekk kaaba fekk aj kii fekkwul julli fekkwul asaka fekkwul kaaba fekkwul aj ama samaani ci Siraaji Malik ne keroog ba góor gi jotee ci doomam ji muy Abdou Manaaf waxuma la huit ans ma ne ndax waxuma la ama samaani waxuma la ama samaani ci huit ans njool màkk la ci góor gi jot Siraaji Malik ne neuf dara xew jàmm rek xew mu yor doomam ànd ak moom di këlëng-këlëngi dix Maodo na dara xew jàmm rek xew moo doom ju guddeeg bëccëg onze Maodo ne jàmm rek xew guddeeg bëccëg tàggoowuñu mais ca douze ba ne bi am douze ans du quatre ma ne huit boo ko omatee ba mu yóbbu douze du quatre bi mu amee ci loxoom quatre ans nag moo dina am na lu xew xew bu rëy ñu ne lan la si xam nga ko bi ammuhu qad raxamahu ila shami قد هغيت الله به عمه أدرى معه إلى شام لأن بلغ بصرى يا شاملي أم بلغت يكذبه وكان ليس يبالي في برد ban la ci bii fi hubbi amoo jigéen ñi jërë ngeen jëf alhaaji malik maodo sàll ñaanalal jigéen ñi yàlla jox leen njaboot gu barke maam ne jigéen i jannato yan wi daw si yaagi maam ne jigéen i jannato ñu la koy jotal jigéen i jannato yan wi daw si yaagi maam ne jigéen i jannato ñu la koy jotal jigéen i jannato yan wi daw si yaagi

رسول الله léegi ñoom fajar ñu ne la la tuddoo doom dootu mel ni moom bokk bokk bokk bokk noonu la ma leen laaxe amul xamaa jarama yàlla doon sama déggoon yaar tey ma wax ne laa ne sama déggoon yaar maa ngi wax ne laa ne sama déggoon yaar maa ngi wax ne laa ne كل يوم فمعك وخل الأرض وصلاة صفات الدنيا وصلاة وخل الأرض سيدي كما تقول يا فمعك وخل الأرض خلقكم الليل فماك أبو جهل نغلو فنادك لا يريق أبي جرى القلب لذة الإمام بكم سيد الأولين سيد الآخرين ومن يمر هاجر ويمتاز waaw kañ aljanaa ngoog urul ay nu yaa nga nuy xaar tailleur yaa ngay ñëw tailleur yaa ngay ñëw itibra ak sudduus la nuy ñawal yëgoon Abdou Aziz benn tëni moom àddina tamul aljana benn tëni moo am àddina te amul aljana doo ma laaj ban la tubéy tubéy amul aljana tubéy amul aljana mas nga xam nga na nuy mel ca aljana noo ko ca makkaay yem looloo waral boo demee makkaay armal doo sol tubéy doo silip doo sol parce que aljana tubéy amu fa kenn du ko fa sol tarax ayu rek ak la amu fa aljana amul tub loo koy doye looy doy tubéy wax ma rek <laughs> ah maa ngi nuyu alaaji man alaaji mag alaaji alaaji Umar Fall alhaaji Cheikh Umar Fall boroom kokki di sunu xarit di sunu goro di sunu wóllëre di denc sunu sët di denc koo xam ne Seydi ji Maalik a jur di ku baax di ku sonn ci bés bii lool di ku mën a defar diggante te nangu caa sonn boole ci alalam taxawu doomu ndeyam ji lool ci biir ak ci biti doonte yéen yal na la yàlla taxawu jàppale la dimbali nga say bokk taxawu nga say bokk yal na la yàlla may jàmm bokk yi cinq heures jot na Abdoulaye Ciss programme gàmmu yi mooy cinq heures la ñuy arrêté maa ngi sant yàlla waxtu wii daaw maa nga jógee ngapporu ca saaru góor ga maa ngi fa départ dix heures ci guddi ak si fii dix deux heures du matin yem ci taabal ji jóge fi 4 heures dem yeewaat waa nga pour ñoroon nelaw maa leen yee maa leen tëral ba ñu nelaw ma rocceeku ñëw ndar gàmbu fi delluwaat nga pour yee leen ciy nelaw yàlla suturaal nañu ren ba bés yi tombewul bii te loolu kat alaaji man alaaji Umar Fall bii ak alaaji Sanjaay ñoo ci sonne noonu fexe ba bés si bañ a tombe dugal ci calendrier bi alaaji Abdalla si bu baax muy joxe date yi gudde gii nu daan dem ndimb dañ daan waalo rek dem ndimb waaye waaye ndimb nga toog amuñu fu ñu jëm parce que ku ku olof ne ku ku ku waaw kañ <laughs> borom tubéy alaaji Malick Maodo Sall mooy tubéy borom tubéy ji kon fu munu fekk rek nu bàyyi programme yëpp ñëw ci moom tey ñaan yàlla nag date bii yal na ko yàlla saxal Abdoul Aziz bu ko waaw yaa ngi dégg samedi bu waaw kañ bu dee cinq fii la bu dee six fii la bu dee quatre fii la bu dee neuf fii la ci kër alhaaji Malick Sàlla mu baax muy yal na yàlla yal na yàlla sell lépp Abdou xam nga ne Sàlla 92 la mooy Mouhamed moom Sàll waaw Sàll ne deet Sàll mooy Mouhamed Saat ñaata la sàlla mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma ne saat soixante la laam ñaata la boo leen boole fobal ñaari araf yi la boo ko ci dóoree mu jox la 92 sàlla mooy Mouhamed sëriñ bi doo ma dimbali itam li ngay def jaaduwul ah sécurité du ni yooyu itam ah man sax kon nag nu tàggoo bu lul tàggoo ñaan yàlla daja fi at yu bari te bu ñëw gën moroom ma alaaji Maodo di ko jiite ci ndigalu Serigne Babacar Sy Mansour nuy ca ànd ak njaboot gu tedd gii di ko teewe fekk fi njabootam gu tedd gii sa alaaji saa tuddul noonu de tuddul noonu de saalihu waaw saalihu ngeen naan sandiaay li mu wax nag yéen ñëpp laaj leen ko adresse bi ku ne def ni moom du yàkkoor ñu ngi lay gërëm li jottali sunu ngërëm ak sunu sant ci sëriñ bi tey leen ñaanal yàlla yaag max yaag Umar uh, seen taxawaay ci kër gi mhm. seen taxawaay ci wetu sëriñ bi mhm. seen taxawaay ci njaboot gi bokk gi mhm. yal na yàlla fee leen sëñ Babacar Sy Mansour mu ne alxalifa mu ngi leen di gërëm di gërëm Maodo di gërëm njabootam di gërëm soxnaam yu tedd yii ak wóolare yu tedd yii ak bokk invité yii ñu jógee Dakar ak faay mën a jóge yal na nga delloo jàmm ak foo ay mën a jóge sooy dem yal na nga yóbbaale njéggalug yàlla yóbbaale njéggalug yàlla yóbbaale war fee dellu si déwén yàlla boo nangul ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu léegi nga may nu tuuti rek dañu sëriñ bi dafa waxoon Baye Tamsir sëriñ bi nee na mi ngi dolli santaat yàlla dolli sant ngërëm ci biir cantam googu nun taalibe yi doom yi jabar yi xarit yi soppe yi nu tegaat sunu cant ci kaw cantam ngir sant leen Baye Tamsir nun njaboot gi day kontaan nanu sagal ngeen nu yal na yàlla sagal leen Abdou Aziz sëriñ bi nee na kontaan na te it li mu wax ci xolam la ko jële kontante googu it ci biir njabootam ci la jóge doomam yii soxnaam yii bokkam yii taalibeem yii xaritam yii ñoom ñépp sant nañu ngir seen teewaay fii ak ni ngeen ko defee sëriñ Omar Fall mais wax na ni Baye Sakho cantam ci yeen mom lottu na ci waaye nuyut lottu ni ci waye mag ñi dañuy wax ni benn baat wax na soxla benn baat wax na soxla dañu wax ni jërëjëf yomb na lool waye ku jëful du ko deg tay dañoo wax ni dencu mag caaxaan du ko ci sutura la ko waxe waye denchu mak caaxaan du ko genné waye it Abdou Aziz wax nañu ni nit ñi ñi ngi nelaw té dañu bëgg ba lañu julli nga yéléen nu taggo ko ak yow ba deen ngeen ba bismillah wa kon baax na nanu nanu ye rek مودا ومفتاح ومصباح منير سواد مصطفى عين العيون مناد سدى هادي بشير وليس للمغيب في ذليل مودا وعين الخلق اين قد نهى مودا المنى من العيون عينا وجلنا ليس عينا ما سلوه حين العيون وإذلال بعين فيه حجير وإرهاس لواكل العيون شيعته سنرنا وعين قد جرت كل العيون فيا عجبا الذي نور منير ونور الاسد في ماء وتين وفي صلب الياس ينادي ويسمع

فقيرنا مفتقرا ينادي يضاعف في كل حين وعام ثم ثم شهر ثم ثم يوم لنا أتى في الهدى قرن القرون كان سرور في سرور في سرور وعيد كان أعياد العيون بشير بعامل في يوم تمادنني أتى الله النور به شرف البخير مدان وقول النور به شرف البخير مدان وقول به شرف البخير في التعظيم ويوم